soxna xaya soxna xawa ndeyam ja daata muy ñëw kër Cheikhi Bamba di fa sàkku aw yiw góor gu ñu naa sëñ Abdu Kumbaan Mbàkke moo ko yoroon ku baax la woon daanañ ko rang sëñ Abdu Kumbaan làqu bàyyi ba jël ko jébbal ko Bamba ngir mu liggéeyal ko foofee la am sëñ Aafe ñang saay nopp mag la ci Cheikh Fallu mi ñëpp sopp Cheikh Fallu kii mooy kii mu bokkal benn ndey bokkuñu bàyyi wàllu la nag ñëpp la doy danaa la wax ñaar ñu mu bokkal benn baay ak benn ndey ñoom ñëpp doon ay ca soxna Faati Mbakke laa koy jëkkee toftal ci maam Mariama Kunta Mbakke ñii ñaar la bokkal benn bay ak benn baay moom Cheikh yi Fall mi ñu def su naquwaay ba mu matee daal alxuraan Cheikh Bamba moo ko dalal Touba la woon dëkkam ba Bamba ko jàngal diir bu néew jébbal ko sëñ Abdourahman ngir mu ko Cheikh Bamba ba mu nekkee fa baari booba fàlloo ko woon ak Moustapha Bay naaw ba foofa ca Mbàkke baari sax la Bamba ba woon njabootam gépp dem Mayomba keroog ba muy dem Moustapha ak Cheikh Fallou ma leen joxoon ceeno rakkam jëm maam Thierno ak sëñ Abdourahman ba fa ndaam ñoo leen xamal ak kañu naa borom saam Cheikh Bamba dem ñëw fekk leen ñu mokkal géeju ci xam-xam ku ko weddi gësul Cheikh Bamba sant yàlla ak rasuulu béglal ci ñoom def leen itam yu mu wóolu fu ndaa fi ne Cheikh Moustapha ak Cheikh Fallou ña wetam ñu ñaan ñu jub te doylu Cheikh Bamba dem gànnaaru ab diir la fa dem ab diir la fa am ni nañ ko wol Cheikh Moustapha ak Fallou rakam ñoom bañ demee la leen fa booleeg ay naar ñuy duy ca ñoom xam-xam yu feesi àndaar cheikhul xadim ba woo fa gànnaar ñëw ci yéen indaale leen ngir sopp lool seenu doxin ca yéen la xëy bis woo rakam Masamba ak sëñ Momar Roqee jarbaatam ba boole ca cheikhi Moustapha ak fàllu Fallou bambaa nga naa leen may ki leen fi woolu man duma bàyyi duma ndi jaay te duma mag fii lépp day jaay ku ci soxla indi njëg cheikh Fallou mii booba la jaay njureelam jëndee ko ak mel ni jaamam biatu bu nu watiya bil irada lakum li koy axda bi xarqi aada foofa ci la seexi fàllu sampi kër doomi sëriñ ndaam lañ ko jox booba mu yor mooy soxna assuloo di ndaw ci soxna mbiyeen tawab sëriñ fàllu murit yépp ko miin ci yéen la seexi bam ci yéen la seex bamba tuxoo dem jurbel yóbbaale sëriñ fàllu mu kenn dul sikkal seex fàllu njaareem la tuxoo dem ndindi sanc ko muy dëkkam di bay di indi te boole kook di jàngalee ko tër biya bokkewul ak sëriñ sadaa tër bëya at mu ne daana bay bindaalib kaamilam boole ci hadiya indil ko baayam ñaar fukki kaamil ak lu topp cib lim bind na leen jox baam bàmba lii doy na ko ndam ba bàmba làqoo Cheikh Moustapha magam la jokk wekk loolu defoon ko sëriñam ba ñu liggéey jumaa ja ma ngi ko féete ndokk ca xeer ya duñ ko woo ba mu wute Cheikh Moudou bu sa taw ba ma ngi ko duppee Cheikh Moustapha day wane nam ko soppee taayif itam Cheikh Fadiloo joxew turam ci ndegalal Cheikh Hamdi Moustapha magam Cheikh mu Cheikh Moustapha ak Alxaaji Fàllu nañ meloon kone la yëm daa mel ni benn lañu woon ba Moustapha làqoo la Cheikh yi Fàllu toog doon xalifa xaadimu rasulu te booba réew mi ndóol na ngir guerre mondiale mu toog ci jal bi daal di man may Sénégal tàllal loxoom ni jiba muut dara déréet jàmm nu ñooy kollu dadd kenn du tiit yeggale mboolem naa li seexi bamba yam fi bowoon moo doon baatinam ba seex bamba yéen na woon na dem madina ak màkka ngir ziar ki samp diina yéena na koy at waaye buur dogalu ko loola taxoon seex fallu dem ajali ko tubaa dëkkub Cheikh Bamba bii tey nu mu mel war nañu santee ko ko ngir moo ko jagal bam mu toogagul daanaka rek dub dëkk amul yoon ba ko ne man fee dikk Cheikh Fallou moo nattul woon parcelle ya leen jox ko mu saadix ya ñaar fukki junni parcelle ak lu topp nattoo li leen ngir bëgg a sédd ñëpp moo yeggaleet jumaa ji def ci sooroor tuddee ko Cheikh Ibra wallahi mooy góor kem ñaari téeméer lu teg jiite na ko aljumaa Touba door a dem bàyyeen ko ci ak ayam la tëli ñëw ci Touba ba woo fa Cees yéemoon na ñëpp boobaa moo fi defit yoon wii di yoonu daara ci ak jaaraa jaaraama sibtu jaara te tali bi jokkale Touba Kébémer ci ak ayam lañ ko liggéey ci njëggu seer màggal gi mooy ki ko woote tuubaa ba tey ku ne ñëw fii fi yu réew baa armeel it alxaaji Fallou Mbacké mooy ki ko miire doon ci sàkku barke téléphone it Cheikh moo ko indi indi courant boutique yi tas ñu jëndi forage ba jëkk am fa daarul man naan moo ko fi def ndox ma di xel ñuy naan marché Ocass moo ko fi def ci ak ayam ak gaar bu ndaw diglu ma toftal ci dëkkam moo sanc ndindi sanc xayra des na bagoo ki xaayante ca Touba Mérina nel maram aliya Touba bobreel ku teew ci dëkk mi ñu fan la jéggal Touba Sourang Madina booba yi ñaar moo leen goroon fu ne mu del fay jàmbar gannaaw bi it ñeent fukki daara ak ñeent goraat na leen sancam du raaf du gent noonu it la fonkee ay magam yam bokkuloon Cheikh Bamba fonkuloon rakam yam nekkuloon góor ña jigéen ña ku ne tuddee na la doom xéer la ci ñoom Cheikh Fallou daal kenn du moom cheikh si fi bàyyam bàyyi woon ñëpp la jël def leen xarit ñoom it ñu koy laaj si ndigal ceeg ayam commencé am tiis mbaa naqar ci ñoom nga jëm waa réew mi ñëpp daan ko wër da doon ko am ngërëm te am loolet xorom woyof ga tax na ku ko min dooju këram nit ku amoon baatin la woon ak xekkam rafet rafet ji ko te fonk boppam mbaa xam ngi tax na foo fi dem ci kër yi gis turandoom ngeen dama mel ci xol yi yitte juróom yi mosa am foo toll dégg ñu naan suñu falu lañ ci wóolu moom daa ne woon ku gaaw ci faj ay kenn la mbàkke bala ay saak Touba dëkk baayam la génnee àdduna tànneef ya sargal ko mu ñibbi aljana Cheikh Moustapha Fadilu moo ko wuutu gannaaw ba nag sëñ Baara moo ca bootu tey sëñ Abo mii mu tuddee ndijaayam sëñ Mbàkke Buusa moo fi toog jotaayam yàlla na fi sax te mucc moo ki rakkam bur yàlla sàmm leen te yokk leen ndam amina amina bi jaahi Bamba kayma gi maam Ceerno sëñ Masamba yàgg fi loolu tawé jërëjëf Guèye na nga kilifa gii nekk ci sa ginnaaw day mook ay bokkam ñoom ñépp day seen xol seet na ci yow seen xel dal na ci